<laughs> na waaj a xam ni suba di nga julli na waaj a xam ni pare na te dinaa dem ci sama kër papa euh, comme Ahmed Khalifa Niass neen dee julli ñaag dinaa fi dem wala ma dem ci zawiya hmm. euh, sama mbokk pël yi rek comme ni nga waxee ñun hmm. moom dañuy julli ñun ñooy ñan bay weddi waa Màkka yéen bàyyi caaxaan donc di jaajëfal ñëpp di euh, baalu ak bu baax a baax di leen baal ak euh, di remercier sénégalais yi ci attention bi ak euh, vraiment intérêt bi nga xamante ni accordé nañ ko ci liggéey Walfadjri surtout nag ci liggéey bi nga xamante ni yéen a ngi koy def bu baax a baax liggéey bi lii moo ci gën a fës moo ci gën a feeñ mais liggéey bi liggéey bu am solo la Issa Tine rédaction bi bi tey ak ñu ngay àndal def ngeen liggéey boo xamante ne wax dëgg yàlla macha allah euh, nga toog ci plateau bi kon nga bañ a toog ci plateau bi aussi di nga gis ni que liggéey bu am solo la dañ leen si jaajëfal bu baax waaw du ñu fàtte aussi technicien yi euh, parce que 14 heures quand même euh, nañuy ñëw mm-hmm. di fi jugee 3 heures du matin mm-hmm. li ñu mën man mënuma ko ah, nekk ci ginnaaw caméra yi kenn xamu leen ak ñi nga xamante ni ñu ngi ci régie yi di xëcc ay fil ak yooyu euh, tey bu euh, émission bi mu nee jàll bañ koy seetaan euh, donc ñoom la dañ leen di jaajëfal bu baax a baax di demander aussi que équipe bi comme am na ay sponsor ak yooyu administration bi def ay effort mm-hmm. defal leen ay ay ay ay ay kii daal ay suukaru koor ak yooyu mm-hmm. dina ci dina ci baax mm-hmm. dina ci am solo bu baax a baax di tàggu technicien yi la wax waxul technicien yi la wax. technicien yi la wax ah, ah, moom mu bëggee bokk. yow yow léegi nga kii yow sa problème dina réglé woo gisoo chaise bu vide bi ana borom <laughs> daaw benn la indi ren mu am ñaar dem leen rek alo di di <laughs> di comme du jëpp wax rek di euh, vraiment rafetlu euh, émission bi euh, parce que madame Aminata Touré ñu ngi doogay bokk jotaay li ñu ko doon gis yëpp ci télé bi la mooy visage bu fermé bi ñuy naan mm-hmm. dafay mer rek dafay kii mais tey gis nga ni que am na esprit bu libre mm-hmm. te aussi nangu na la contradiction mm-hmm. bu d'accord